internautes yi ñuy bàyyi xel ci seen info point net ak seen info international ñu ngi leen di nuyu leen defal tënkub xibaar tey mercredi di mars ñu tàmbale kook xibaaru biir réew président Macky Sall mi nga xam ne nag moom mooy njiitu Union africaine ba sub tey bii nag euh, woo na téléphone ki nga xam ne moom mooy président bu Russie di Vladimir Poutine li ko waral nag da doon sàkku ci moom ngir ñu teg ngànnaay ci song bi nga xam ne song nañ ko ñii di waxtaan bi nga xam ne am na ko ak naataangoom bii di Vladimir Poutine te nee na wax na ko ne moom dàqul ñu toog waxtaan ngir xool nan la ñuy indee saafara ci boobule guerre. député Boubacar Biaye ak El Hadji Mamadou Sall mi nga xam ne kon dañ leen tuddoon ci mbirum trafic de passeport diplomatique fi mu nekk nii nag seen procès taxaw na bu sukkandikoo ci suñu naataango yu Les Échos nee nañ dinañ amal boobule procès le 17 mars 2022. bu weesoo ñaari député yi nag procès bi ñeel na yeneen ñaari nit euh, muy Sadio Dansokho ak it euh, ki ñuy wax El Hadji Diadji Condé ñoom nag ñu ngi leen di toppee mbirum euh, association de malfaiteurs escroquerie blanchiment de capitaux faux et usage de faux sur des document administratifs faux en écriture publique authentifiée panafricaniste sénégalais yoo xam ne dañoo bàyyee woon fii ci Dakar boobaak léegi sax def na ay fan yu bëri ngir daal dox jëm fële ca Mali ci lu war a toll ci mille trois cent kilomètres ngir ñaawlu daan yi nga xam ne waa CEDEAO daan nañ ko réewum Mali. ñoom nag bésub tey bii ñi nga xam ne ñoom ñooy waa gendarmerie bu Kidira dafa am ñu ñu teg loxo ca ñoom. wante nag am na ñoo xam ne sa ñoom jot nañoo làqatu lii di gendarmerie ba sax dugg nañ fi nga xam ne moom mooy réewum Mali. li waral gendarme yi bëggoon dakkal seen doxu ñaxtu boobu nag moom mooy fi nekk nii réewum Sénégal dafa ànd ci décision yi nga xam ne CEDEAO jël na ko ba sax tëj ay frontière am ak réewum Mali. xibaaru Afrique benn ponk lay doon muy ba léegi ca réewum Mali foofa nag euh, ki nga xam ne moom mooy ministre de la défense di colonel Sadio kamara ak ki nga xam ne moom mooy chef d'état-major de l'armée de l'air ba di colonel euh, Alioune booy Diarra ñoom nag dañoo dem fële ca Russie ci ab tukki boo xam ne sax kenn fësalu ko bu ñu sukkandikoo suñu naataango yu VOA Afrique li waral tukki boobu nag moom mooy dañoo war a waxtaan ak réewum Russie ci ay ngànnaay yoo xam ne jot nañ ko lu yàggul rek te mu jóge ci réew moomu wante itam xool nañ la ñuy amaatee yeneeni ngànnaay ngir gën a mën a jàmmarloo ak ñi nga xam ne ñoom ñooy terroriste yi xibaaru bitim réew it benn ponk lay doon muy réewu Union européenne yi nga xam ne dañoo jëlaat ay teg ko ci kaw Russie gannaaw bi nga xamee ne def na ñaari ayu bés bi ñu songee Ukraine ak léegi waa Ukraine ñoom ñu ngi tuumaal waa Russie nee nañ nag ñoom respecté wuñ li nga xam ne xaatimoon nañ ko ngir mën a rawale ay civil yu nekk ci dëkk yu bari foofu la ca Ukraine lii la ñu indiloon tey ci ay xibaar dafa seen taw lañ jox daje ëllëg jaa ngeen jëf